mos nañu ma ci laaj sama yaram tàng man leen nañ bëkkante buñ paree tabaxaat dëkk bi mos naa ko wax fii ci rajo laa ko waxee télé boobu yëf yi daf maa soof coow li bari mais ma yaakaar nañ itam il faut aja ñu delloo xo ñu delloo xel sànq dama waxtaan ak benn waay mu ne ma ñun ñi yor passeport bu amul visa de xaw ma fu ñu jëm ñun ñu yor passeport bu amul visa mhm. xamuñu fu ñu jëm par ñu yor passeport diplomate comme ñu ngi ciy waxtaan ci cadre yi ngay wax ñu si sa bopp Sénégal ñoo ko bokk Sénégal ñoo ko bokk ñoo ñoo ñoo ñoo ba ñoo ba ñoo mujj bi mu réer nañu delloo si sunuy xel eh, xam ne façon bi ñu ci tàggatee sunuy doom mais sëñ bi ñun kenn xamul ban Sénégal Sénégal woote woon na ak pays africain yu bari mais léegi dem na tuuti mais sëñ bi ñooñu sax ñoo ñu jiitu kon nañu delloo si sunu xel politique sëñ bi du du du yàq dëkk politique defar dëkk la politique mooy nga fexe ba cité bi baax cité bi baax nag du tabax tali yi di rey nit ñi tabax yi di rey nit ñi solo parce que nit ñi ñooy jaar ci tali yi infrastructure yi ngay defar yëpp pour nit ñi la kon bu nit ñi dee loolu nga tabax pour kan la kon bakkanu doomu aadama moo gën na cher nañ fexe ba sàmm bakkanu nit ñi balaa ngi sàmm tali yi defe naa loolu moo gën naa ñet surtout ñu ngi ci weeru koor mhm. nañ ko delloo weeru jàmm la weeru weeru yiw la euh, weeru weeru yiw la léegi nag dama tiit aja dañoo dem ba Sénégal kilifte kilifte amatu fi kan ngay xaar ci mu wax pour dëkk bi sabal kan amatul du politicien du sëriñ du sëriñ si du xaaratuñ kilifa benn kilifa wax pour Sénégal am jàmm loolu nag bu ci réew ma tolloo man damay faral di tiit saa waay damay faral di de parce que itam na loolu boo fa Sénégal jëm gënul ci kenn nañu delloo si sunu xel ñun ñëpp xam ne Sénégal c'est la pays du Teranga yaa ngi nañ koy wax mm-hmm. ah pays de la Teranga Sénégal pays de dialogue la yooyu nañ ko delloo si waat fexe daal vraiment ba dund ci jàmm defe naa moo ëpp solo xuloo ba xeex bi amul njëriñ